Assalamualaikum guys, Assalamualaikum guys. Semua video sama video tay bi duma ci saga dama bëgg président Macky Sall déglu ko mari ak sénégalais yépp ku ne mëna xam li xew ndax ñëpp ak may top walé sék walé sék lan mo xew da gedd ak geddul da gedd ak geddul gay walé sék du artiste buy gedd dépassé na lolu kuy gedd di nga préparer son pour ñukkal Sénégal njukkal sa réew la ci ñukkal président Macky Sall 4 jours ci ak artiste yépp Tarba mbay ah euh, waay ñëpp artiste la wo kenn desul elas kayta ba ci wa suba teel woo na len xana nga si suba bañ son bu rëy ku deglu son bi sa yaram day daw da ngay joy te wali sek dafa warona live mu ne non non comme que li fête des nations la artiste yep la ni wo dajale len ñu bokk ko ndax ñep munta live xolal lolu ci ñu gore léegi nak mu wo artiste yep studio tourner son son bi deglu ngeen ko son bu dal son bu dal bo xamante si musu musuma gis son bu melni mais wali sek du nit il est fort ce gars nak warona playback gis ngeen li xew gis ngeen image yi kenn du leen ko nettali playback ah balaa ngaa playback da ngay yónnee sa son ku nekk sa ñoom da ngay yónnee son bi nga war a playback avant démb lañ koy envoyé déglu nan son bi ñoom xam nan kii li mu woy dafa garaaw déglu nan ko Wally Seck ba leen joxee rendez-vous ne leen comme tey jii ñu ne la une nga war a ñëw deux une nga war a ñëw avant une heure moom daal deux heures deux heures fekk na ko ci stade bi ci logement wam deux heures mi ngi ci logement am bàyyi ko tey vingt une heures ci lañ ñëwee ne ko yaa war a yéeg te gis ngeen li xew kuy def playback artistes yëpp dañuy yéeg bu ñu yéegee def seen playback ñu taalal leen làmp yi ñu wàcc bu ñu wàccee dañuy fay lamp yi ndax kiy bu bëgguñu ñu dégg firi ko dañuy fay lamp yi ba muy waaj a yéeg ñu doog koy taalal ci lañ ko fekk ci logement am ne ko yaa war a yéeg ko tey vingt une heures Wally Seck jóg defaru ba nice ànd ak ñoom Fallou Dieng Tarba Mbaye Dieyla Kan Diallo Elas Keita ah, ah Abou Dioubalo ñi mu bokkal ñëpp ñi nekk ñëpp ñëpp ñëpp ci son bi ci clip bi waale ànd ak ñoom ba mu jógee stade stade bi waa kii bi di riir waali waali ci waali waali yaay seen baay yaa fi nekk waali yaay seen baay di riir ci stade bi ñoo xam ne jàmbaar ji dugg si ndax fu mu dugg du ñoo xam ne jàmbaar ji dugg si na waali yéeg ci kaw seen bi def na ci kaw seen bi treize minutes ñu fay lamp yi ba pare teguñu ko soom teg ay foli tuppa treize minutes treize minutes ba mu xamee ne ñii danoo bëgg a mais Wally mënuñ ci moom dara ba mu ba xamee ne ñii dañoo bëgg a te mu wàcc mais ba mu wàccee seen bi ñi bi dafa wër stade bi di daw wër stade bi wër stade ba gars yi yëpp Wally Wally Seck di riir ñëpp xam ne Wally Seck ñëw na mu doog a génn dem gars yi lii lan moo ko fi jar lan moo ko fi jar lii nag dama ciy génne waa Subateel ndax seen yoon newu ci am na benn artiste bu gën a garaaw bu muy jonganteel ndax Wally sekk ci kaw la bëgg a dem léegi nag ñi def lii ñooñu nag ñoom ñoo seere solo bi ñoo yor affaire yi incha allah fii la ñuy yem dinañ cité ay tur ci beneen vidéo bu son